wax moom la la cee noppal mooy seet fa nga jëm rek ba bañ koo tal waaye ku dugg ci tontonte ay wax loolu ak yàq rek la jur ak wuññeente ay ay te loolu amul njëriñ ndax kii nga xam ne moom lañuy ñuy màggal guddeem te nekk ci weeram muy rasulullahi sallallahu alayhi wa alxaan tëggu ko ci lenn lu mooy wa innaka la ala xuluqin azim kon nag sëriñ bi nee na makaarim axlaax jooju nga xam ne rasulullah ci la ko suñ borom tagge te Serigne Touba def ci xasida yu bare bëri yoo xam ne wa innaka la ala xuluqin azimin la ko tënke neen nañ ci gën a tënku te xam ne makaarim axlaax rek am solo nañ xam ne diine du xelum kese diine dafa am ay fondement fondement yu wóor yoo xam ne la ko téye bul xool la jub ci sam xel nga jàpp ne dangaa war a atte sa diine ci xel ndax tey junni nit bu ñu newoon fii kenn ku ci ne ak sa xalaatu bopp mooy xor xoriyatu taabir bi ñuy wax loolu nag boo ca xasee ba dugg loolu du sotti kon loolu xew na ci jamono waaye buñ ci roy tubaab yeeg wax yeeg yëpp yoon mu kenn xamulewul kenn xamewu leen woon loolu kenn xamewu leen woon wax yu bari yoonu ci jëf lañ leen daan nawe te fuñ àgg itam jëf moo ñu fa àggale waaye yaakaar naa booy xool njëbootu Sëñ Tuubaa gi sax ñu ci suñ boon defaloon fa saaxa ñu néew néew la kon yoon wi ay wax tëyewu ko te saa suñ gënee ŋàññi yoon wi gën a ŋàññi Sëriñ Tuubaa seen pëstéef di gën a yokk nit ñi seen pëstéef Sëriñ Tuubaa ak seen doogu ci moom màggal gi wees wane na ko kenn mënu leen tàyyal la ci mbirum Sëriñ Tuubaa moo tax jërul sax sonn jëru xalaat léegi la dañuy jéem a layal Sëriñ Tuubaa dañuy jéem a layal Sëriñ Tuubaa ba ba ba njuumte di ñu ci bëgg dal ndax léegi booy xool ñiy communiqué ñëpp da ngay dégg ñuy wax ne nañ dundal màggal gi ci jàng alxuraan ak xasida loolu dëgg la baax na lool ndax waa Kër Sëriñ Tuubaa ko santaane waa Kër Sëriñ Tuubaa ñoo ko santaane tàmbalee ci Cheikh Mamadou Farid bi mu ko wootee ak Cheikh Abdoul Ahad ak Cheikh Saliou ak Cheikh Abdoul Khadir ba ci Serigne Saliou ba ci sët yi leen wóotu di Cheikh Mamadou Lamine Bara ak Cheikh Sidi Moukhtar ba Cheikh Mamadou Mountakha waaye nañ xam ne kat la jiitu ci ndigalu Sëriñ Tuubaa mooy bernde yi loolu nag kon day mel ne nit ñi lépp complexe moo leen ci bëgg dugal mooy bëgg jéem a wax ak ñi nga xam ne gëmuñ Sëriñ Tuubaa tax ngay jéema a layal Sëriñ Tuubaa te suñ borom moom mbiram wees noonu lu ci ne boo demee ci tabaski tabaski eh, am xar lañuy rey tabaski nit jaamuwu ci yàlla lu gën lu ko gënal rendi rendi xar mi kon suñ borom moom lu mu digle rek moo xam xekk ma tax ba tax mu def ko na nga xam ne suñ Tuubaa nag ba mu koy digle lam ci njëkk defal boppam santaane ko mooy bernde yi daa waxoon ne na ma ci ñëpp santale yàlla daal koy leeral nag santale yàlla kon lu ci waay man tàmbalee ci ganaar ba ci gëléem tolol dégg ngeen ko ci lam ñu doom suñ Tuubaa yi loolaa wér loolaa jógee suñ Tuubaa li ci des lépp nag lu baax la luñ ci dolli loo xam ne lu baax la ñëpp ko war a fonk njuumte li ñu bëgg dem te loolu gis naa ne njuum ci ci bëgg ndax ñëpp ñu koy wax xëy na lu baax lañ jublu waaye bëgg ñi nga xam ne gëmuñ siñ bi ñu bëgg leen wan ne suñ tubaa bi mu koy woote alxuraan la ko woote xasida loolu lu baax la waaye nag la ko suñ tubaa digle woon buñ ci comp complet si dugal ndax boo demee tey makka makkatul mukarram euh, kaaba ga xajarul aswad diggante safa ak marwa loolu boo ko xoolañ cim xel mënu ko leer loolu diine ci wax moo bindoo noonu diine du loo xam ne lépp da koy teg cam xel diine nag mabniun ala naqli la ala munasabati naqli kon nañ xam ne li am solo rek mooy na ko Sëñ Tuubaa digle woon nañ fexe bañ cee appal bañ cee yësal fexe ba na ko Sëñ Tuubaa digle woon soppiku jamono bu ñu dugal ci jéem a dugg ci ay puukare wala loo xam ne dana ko nëxal donte mbirum Sëñ Tuubaa dara mënu ko nëxal ndax suñ borom ko tàggaleeg loolu képp ko bëgg a naxalit ndax gëdd la weesu yow waaye mbirum sëñ moom day dox di wéy rek wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala